safarul sam-sam mbir na yëmbal de li war a sunu teewaay tey fii mooy dañu am benn naqar bu nu metti léegi kii mooy sunu imaamu ratib imaam Modou Gueye sunu délégué de quartier Cheikh jenn mi ngi ni ak mag ñi ñu bokkal quartier bi yëpp ak notable ñu ko bokkal ak maire yi mbootaay yi ak xele yi ñëpp génn nañu li ñu tax a génnit moo di dañoo tëj dëkk bi amatuñu fenn fu nu jaar mbooleem mag ñi daan jóge fii ci ginnaaw raay di jullee ci jumaay ji ñetti ñetti ay jumaa ngi yoo xam ne mënatuñoo dem ñoog jigéen ñi ca mag ko aaye julli jàkka ku ko aaye dem jàkka lor nga ko beneen bi ci des nun amuñu lul armée yi yëmbal amuñu lul armée li caaroy mënatunoo dem mënatunoo dikk jàkka ji ngay seet muy jumaay ji moom lañ fi am benn morgo bu nu amoon ko wàññiku mun na koo denc ci kër gi kon nag ginnaaw président mooy sunu kilifa tey liggéey bi lépp moo ko yore moo ko moom li mu santan ñu doon liggéey liggéey yu ñu ko diggante pont bu ne ak morom ma daa wax ne nekk trois cent mètres pont bii ak pont boo ko xoolee un kilomètre demi la kon loolu ku ne xam na ni jaaduwul ci askanu jàmm gën askanu sam-sam askanu mbir na yëmbal deux nun nag lu ñaan noo ngi ñaan ci yar noo ngi koy ñaan ci teggin président gëm nañ ni bëggul aw xeetam kenn ku ne nekk ci njàqale wala nga nekk ci métit kon nag lii askanu sam-sam mbir na yëmbal deux ñu ngi ko koy jooy ñu ngi ko koy ñaan na jóg wirifeel boppam ba xam ni la mu santaane woon kenn defu ko ci nun nag duñu xuloo duñu xeex am nañu droit ñaan sunu kilifa wax ko li nu metti mënatunoo dem mënatunoo dikk ba ca topp moo di miir bi nu mu toll dafa lëndëm amul benn lamp boo fi jaaree agresseur dañ lay kar sunuy ndey ak sunuy doom dañ leen di kar loolu nag président moo ko mën a faj mooy sunu kilifa noo ko doyloo woon taamu ko teg ko ci kanam réew mi kon noo ngi koy jàmm sunu soxla nanu ko fajal ah, noo ngi sant noo gërëm noo ngi sant commandant ak ñu mu àndal ñëpp nag ngeen baal ñu yàqoo salaam tellement que am nañ tuuti lu ñu metti la dernière fois bi ñuy def suñu sitting police dafa ñëw arrêté arrêté sitting bi donc jotu ñoon def suñu déclaration problème bi mooy tey dem nañ uti suñu autorisation pour marche def nañu marche bu bu bu jaar yoon boo xamante ni par exemple vraiment nit ñëpp kontaan nañ ci donc li ñuy réclamer mooy ay passerelle la ñuy réclamer et là ñu ngi le chef de l'état mom xam projet bi projet la et puis projet bi xamna ni amna fuñ ko teg donc ñu ngi demander à ce que mom mu ñew xol nan lay défé projet té du am ben problème du am ben loraange actuellement ni nit ñi amatu ñu passage so dee xol comme ni ko paa bi waxé légui ni so xolé 1 km de de de distance mom mo fi nek bo xamante waran nañ ko défar ay ay ay ay passerelle mais defuñu ko donc gis nga lumière yi normalement projet de forona am lu accompagner mom moy route goudronnée et puis ñu assainir ko

Nous ngi demander état bi les autorités surtout nous ñu ñëw def nu mu gëna a liggéey bi sinon ñun aussi amna yenen plan yo xam dañ ko mëna a teg voilà. remercier population Sam Sam di remercier préfet ak euh, euh, police bi ñu envoyé. di lancer appel à monsieur le président de la république diko wax né ko. euh, sam-sam la lettre bu mu jotoon ci affaire passerelle yi fii la tay ñun ñokoy demander passerelle parce que fi xalé yi ñu dem jàngi jéggi raay bi dem jàngi mag yi mënatuñoo ñëw di dem si jàkka ji di dem ci armeel yi di ñëw ci beneen côté bi euh, maire yi ci boppam mënatuñoo jéggi raay bi maanaam ñun suñu côté bi nii dañoo tëj carrément mur de Berlin la ñu defaral ñoo ngi demandé à monsieur le président de la république mu dimbali ñu ñu am passerelle parce que dañoo tëj carrément. passerelle la ñu manqué moo yàq suñu dëkk bi dañoo miiré raay bi yëpp ba mu daj amul fenn fu ñu jaar man bind na bind naa préfet département bi lettre bi jot na ci mi nii. bind naa ko département bi pour affaire passerelle bi bind bi directeur APIX yëpp a ngi nii ñoom laa ko bind pour nu am passerelle nit ñi mën a jéggi mën a jàll fi mu nekk nii un kilomètre cinq cent yi ñu wax ne moom la sax boo ko ëpp na ko kon lool na ngay wëri un kilomètre wala un kilomètre et te amuloo foo jaar kooku metti na dañu wax ne trois cent mètres chaque par trois cent mètres dina war na am parcelle nun gisuñu loolu nun dégguñu ko waaw nun un kilomètre et quelque la nu léegi nag dañuy ñaan président de la république mooy tout le président de senegal nu mu dimbali ci parcelle lu mu gën a gaaw a lu mu lu mu mën a dimbale nañ ko dimbalee loolu daal la ñuy jooy moom la mbooloom ñëpp di jooy jërë ngeen jëf wa salaam. lii la ñu def tey dina ko xaw a yéexe ndax wax dëgg yàlla sunu dëkkuwaay bi ni ngeen waroon fekk du lii la ñuy wax wa dëkk bu toll nii amul jàkk amul fu mu jullee amul fu mu suulub néew. loolu nekkul jaaduwul te amul kenn koo xam ne si jiitu nañu fii wala mu gën fa armel yaa ngi nii jumaa ngi nii jumaa beneen jumaa ngi nii imaamam a ngi nii ñun ñëpp fii la ñuy jullee bi fii la nekk amuñu poutrelle amuñu amuñu amuñu pompe bon dama ne noo ñaan président nañu dimbali lii mu dal di deñ ay nitama fi nekk te ñi fi nekk ay jullit lañu nañu dimbali jullit yàlla yi ñu am fu ñu julli ñu dimbali ñu ñun amuñu jàkk juma suñu côté bale bon nañu dimbali loolu mën a am te sooraale woon ngeen président dana woon ne cent mètres ñu ne nan ko def patron ñu koy dégg suñu nopp bon loolu bul sax amul bon nañu dimbali te yàlla dong nga tax mu àgg ci loxol président nga xamal ko ne ay nitam dong nga fi toog ay jullit dong nga fi toog bon na leen dimbali te yàlla dong nga tax salaamaaleykum di wax ne li ñu fi tax a daje jàmm la rek man maa ngi tudd Mouhamad Gueye nekk imam ci jumaa yi sam sam sam dina yëmbal deux ma représenté it sama yeneen mbokki imam yi ndax ñett lañ waaye teew naa fi man wuutuwaale ñeneen ñi ci des ngir ànd ak xale yi ak population bi ci lii nga xam ne ñu ngi koy dox ak lii nga xam ne ñu ngi koy sàkku su fekkoon ne dafa nekk loo xam ne ay caaxaan la wala lu ñàkk solo konoon benn imam du fi teew waaye nag lii dafa doon lu itteel population ñaare quartier yëpp ñi dëkkee raay bi nii ak ñi dëkkee raay ba nële dañoo nekk ay nit ñoo xam ne yàgg nañoo dëkk yàgg nañoo sëq yàgg nañoo jëflante jàmm rek di xew seen diggante ay xale di war di jàll ay mag di war di jàll ay màggat te distance bi nga xam ne mooy distance ñaari passerelle yi ñu sëq dafa yaatu dafa sore ba ëpp yoon loolu mag munu munu ko jéggi te itam xale yi dañuy jàng bu nit gaañoo pour ñu andi ko ci morgo bi jéggiraay bi loolu yëpp dafay jafe te dañ ko war a sóoraale kon ñun dañu ñëw daje fii tey ngir tawat pour ñu defal ñu passerelle ñaan autorité yi nga xam ne te bu ñu waxee autorité bi ñu ngi jiital rek ka ca ka ca bopp muy moom la ñuy ñaan mu taxawu te moom joxe woon na ordre ne chaque distance su 500 mètres war naa am passerelle. te fii mat na un mètre et demi un kilomètre et demi comme lañ ko waxee kon loolu rek la ñuy ñaan bëgg ngeen dimbale ñu ci ndax luñ lu am solo la loo xam ne tey bu amul rek da loraange dina am ci eh, terre bi ci population bii nii kon nag ñu ñaan yàlla mu dimbali ñu dimbali leen waaye yéen itam ngeen taxaw ci lii nga xam ne moom la ñuy sàkku ñun jàmm rek lañ bëgg defuñ manifestation boo xam ne bii day yàq dara wala ñuy perturber dara waaye dañu dox rek pacifiquement dajé wax suñu soxla ñaan liñ bëgg lo rek la ñi ngi nuyu salaamu alaykum wa rahmatulah. normalement euh, population bi ak wa wa APIX concertation waroon na am yaay dëgg ba lu bari du nekk ba si ñun est ce que lu wax mais duñu informer kenn ñun xamuñu la xew dañuy xey rek gis seen ay ndaraan amuñu benn respect buñu jox té bi aduna soso ba légui yeen ñi fi taxaw ñëpp kenn musul gis. passerelle yi nga xam ne da ngay jéggi tali yéeg passerelle wàcc passerelle jéggi tali loolu danger la ci suñu ay doom parce que fii xale yi mii ñu tali dañuy sàkku ci président Macky Sall ñu defaat yeneen xeeti modification seen passerelle yi baaxul waroo jéggi yoon di yéeg passerelle wala ngay wàcc passerelle di jéggi yoon waa léegi bi ci topp bi ci topp fii ñu taxaw di wax gars yi tali la ñu fi def bi nga xam ne tali bi tey boo seetloo euh, rumeur yi ñuy dégg latri kese lañ fi bëgg a def loolu depuis temps Senghor lañ ko gën a gis tey li ñu naqari mooy yëmbal sud li ñuy jànkonteel ci ay jafe-jafe taf bari dëkk boo fa nekkee soo demee ba éclairage public waa dëkk bi ñooy cotiser di jëndal seen bopp ay lanterne di fay électricien mu leen di taalal ko ñun boo ci ñu si dëkk bi zone bi ñu nekk dafay inondé bu xiinee rek dafay taa léegi tey bu ñu defee tali sans canal ñun fan la ñu jëm liggéey bi daal du dara lu ñu ci arrangé président Macky Sall nag koy wax mooy tali bii su fekkee latrik kese la ñoom nañu xam ne oto yi suñu kaw la ñuy jaar mais talibi oto di ci daw